maa ngi lay fay. sant yàlla bu baax. maa waral tey si waaj stade. maa andi Youssou Ndour. naka nga andee Youssou. ah pour mu bëre am ndam rek. xale lay bëre est-ce que yomb ci moom. Ah, waaw waaw xale lay bëre xam nañ ko. barke dem rek la fa mag daan xale. loolu muy kan. ah dama tudd tur waaye xam nga gis nga ko. Balla Gaye nga wax ak Bombardier. waaw. mais naka nga gisee lamb jooju. non lamb amul lamb amul xale mag. ku nekk bés bi lu la jaral rek bés dañ koy waaj soo ko waajee loolu bés bu jox rek nga jël bés kenn du ko fowee kenn du ko caaxaanee làmb du caaxaan làmb boo xasee ba dugg ci combat ñi la bëgg ñi la bañ moo tax da ngay liggéey ba mel na kuy waaj a dee ndax da ngay bari ba dee yàlla dogal nga daanu am ñu lay ñaawal te vraiment daanu neexul am na naanu yoo xam ne boo ci daanoo nag du la wàññi dara boo liggéeyee ba daanu ci yoon. mais keroog yaakaaroon nga ne combat Bombardier Balla Gaye dina demee noonu. waaw man man sax man sama analyse ma joxe woon combat ma dama bett. dama la bett parce que yaakaar naa rapidité bi ci bi ma xamoon ci Balla ak endurance bi ma xamoon ci Balla ak li mu indi keroog si laa gis ni daal combat bi di yomb ci moom parce que combat bi li nga yombul ci moom mooy foog mu xeex moom xeex bu méttee méttee métti. waaw. Bombardier ku bëgg ku ko bëgg a gañe doo ko song yi. mais dama gis mu ko tàmbali xeex bi jël ñaar coup yoo xamante ni bokk na ci ci la ci laaxali ambam. mais doo booy door da ngay wax booy booy door dañ lay door mais da nga bëgg a te kenn du la door loolu mënu nekk booy door dañ lay door après làmb am na bés yoo xam da ngay nàcc làmb jee koy laaj am na bés yoo xam da ngay arrière làmb jee laaj waaye na bés yoo xam ne da ngay dem jëli ni nga moom parce que làmb jee koy laaj. mais ñu gis ne ak Balla Gaye ko ñu liggéey bi des na te gis mu jël quatre combats ak état de forme bi est-ce que li mën a yegg yenn combats yi. xam nga euh, mbër yenn yi ñu xasee ba àgg ci kaw suñu xasee ba àgg ci kaw dootuñu am ku leen xelal ba ñu jël sam xel. Euh, daan naa dégg Yékini mu ne mbër su bëggee nekk mbër lépp lu koy def mbër da koy def mais saa bu ba nekk mbër lépp lu koy yàq nag moom ci mbër mi ci boppam lay jógee. da kay moytu mbër du guddee tëdd. déedéet mbër du lekk ci kër bu dul seen kër dama la koy wax ma ne mbër du lekk fu dul seen kër dégg dégg ñu naan mbër du xaaraan mbër seen kër lay lekkee mbër day a tëdd mbër yomb na mais champion yombul mbër ak champion bokkul am na ñoo xamante ne fi ñuy yeggee ci kaw fi ñu war a nekkee champion dëgg-dëgg fa la ñuy yàqale li leen doon champion wala kay ñi compter ci moom dafa bari. am na ñoo xam ne tey bu bu daanoo dañuy perte seen xaalis bu parce que dañuy teg ci moom xaalis bu bëri kon buy bëree war na xam ne am na gannaawam dafa yaatu Balla Gaye du n'importe quel mbër bu doon si jamono yu jëkkee mbërëm buur lay doon parce que ñi yaatu si gannaawam dafa bëri bëri trop. lan nga koy xelal xale la lan nga koy xelal xale la avenir bi lamba ngeew ci kanam moo bëgg ay xale yoo xamante ni nii yàgg nañoo rêvé ku ci mel ni Boy ku ci mel ni Gris Bordeaux ku mel ni Eumeu Sène lan ngay wax Balla Gaye mu delluwaat entraîné ci wut ay adversaires yu am doole des entraînements ñu entraîné ak moom te mu bañ leen ëpp xam-xam maanaam lu ñu ko digal mu def ko doo xeeb kenn dégg naan ni ñi ñu naan papaam nekkatu fi père Balla nekkatu fi mais moromi papaam a ngi fi mère mi por Balla ngi fi na dem jëli leen woo leen ñu encadré ko ànd ak moom. dara manqué wul yaay jëli nit ñi ñi ko entraîné si mbiru xaalis xaalis lañu am mais amuñu xam-xamu lamb lamb beneen façon loo lamb xaalis du benn lamb ak xaalis du benn xaalis saful suukar mais mooy jënd suukar da nga ma wax baax ñi am xaalis nañ ko dimbale si xaalis te bàyyi ko ak mbëri na dem wëri na dem wuti ñoo xamante ni ay moromi papaam la ñu woon ay boromi xam-xam ay boromi xam-xam parce que écurie ba am na ku mel ne Mbaye Samb gisuma ko ci làmb ji bi passé Mbaye Samb gisuma ko maa ngi dégg ñu wax Lamine Golo mais Lamine Golo lu ma moom xam-xam ëppul Mbaye Samb xam-xam te ay waalo waalo yu yu am xam-xam ñu ngi fi nit nag doo xeeb xam-xamam boo xeebee xam-xamam doo ko jëriñoo nit doo xeeb kenn mais fi mu toll na dem entraîné dégg naa ñu noo feebar na dem faju yi bu fajoo ba wér mu entraîné ba taxaw xam ni li des si kalambaam ay moroomam dans cinq ans ay rakam ñëw jël place kon mooy li muy def mu ngi fooyee am na loo xam boo koy def doo tëdd guddi di ànd ak borom xaalis di dem ci naaj club yi ay soirée Wally Seck ay soirée ma Mademba yooyu doxul gisuma ko nag dama ko dégg rek. kontaan naa jërëjëf.